ziar masawu ngeen su ngeen tukkee ci dëkk étudiant am fa bu leen fa génn te jeexul wala ñi mu dal bu ñu amee itam ci dëkk bu fa tukki toogal ba te dafa am sànn laxas sa loxo ba mu set bala ngaa lekk bu fekkee sa loxo ngay lekk même boo léegi doo lekk kudd sax na nga raxas sa loxo ba mu set bala ngaa dugg ci lekk gi set ci sa yaram set ci li ngay sol set ci fi nga dëkk set ci li ngay lekk lenn lu ci nekk dañ ci war a def sa itte bu baax a baax a baax ak jël suñu matuwaay yi ñu war a jël yëpp ni ñu ko yonent bi diggale ci xadis ñu jëfandikoo ko booleen nag rek avertir ñëpp di leen wax sax bu euh, yu mel noonu masaan am de ñun am na benn ñaan bu ñu góor gi daan wax ni dee leen ko def ci jàkk yi dee leen ko def ci seeni kër ku xëy na ko def fatiha ngay tali jàng yaa qaadiran yaa muridan yaa qaiman bi nafsi hada maradun jadidun fakkina min basi mu ne bu ngeen ko jàngee ngeen jàng ñaan boobu juróom-ñaar yoon yéeni ci seen njaboot yi ko mënul wax yëpp ñaan yàlla nit yàlla gën a musal Sénégal amit yàlla na yal na yàlla gàttandoo yërmandeem ba du ko faat